Matar Joxaane bi l'observateur ne ko juum nga dee juum nga dee ndaxte musiba mbaaba ko ma day moo daal di wàcc nag ci ñii ñuy wax ne kon ay jihadiste lañu ah waaw waaw parce que Matar Joxaane day ak fukk ca ñoom waaw procureur nee na nañ leen tëjoon seen giiru dund ak liggéey boo xam ne nag sañuñu koo bañ fanweeri atu yàlla yoo xam ne kon nañ ko tëjoon kii di imaam Alioune Badara Ndaw ak liggéey boo xam ne day sañu koo bañ ñaar fukki atu yàlla yoo xam ne nañ ko tëjoon Saliou Ndiaye Moustapha Diakhaté fukki at ak juróom yoo xam ne dañu ko tëj kii di Pape Djibril Coulibaly ak Ibrahima Ndiaye ak Alaaji Mamadou Ndiaye fukki atu yàlla yoo xam ne day dañu koy tëj nag kii di ñaareelu Matar Joxaane armée ba ak juróomi at yàlla yoo xam ne day dañu ko tëj aawaa ah, mbaax la ilaha illallah le quotidien yéene kaay ne ma ne la daan yi ndawul de déedéet tey wàllum kaaraange wàllum kaaraange googu laas yéene kaay nee na coowal a Mamadou Dieye lu doy waar mi nga xam ne dañu koy tuumaal ne kon daa jékki-jékki génn kon armée ba te loolee waru ko waaw ba tax nag ñu daal koy téye day ca brigade prévôtale colonel Abdoul Aziz Ndaw waaw daal ne xam le ne kon gis nga capitaine moom a génn génn bi moom moom ci nii ak ci nee daa war a génn armée bi colonel Abdoul Aziz Ndaw yamu ca ndaxte nee na capitaine Dièye day bu ko neexee defi politique bu dee sentir na ko na dem waaye man dee ci sama xalaat kilifa yi dañoo war a am njàmbaarte daal di koy bàyyi mu dem ngir ñaara tax benn mooy daal nangu na tekki ndomba tànkam boobee daal koy nangul démission bi ndaxte nag bu dul dara sax di intérêt wu armée bi parce que armée bi nag ni ba noppi nag di politique a doon ragal ci loo xam ne ne kenn xamul lan la kenn mënu koo justifier la la wax enquête yéen kaay ne gis nga capitaine Dieye moomee waaw ak Ousmane Sonko ak Ibrahima Dem di Massi Saraba waaw ñii mbaa ñoom la yàlla ji bëgg a yónni ngir ñu génn ci jafe-jafe les nouveaux messi a Pape Seye Gueye bu PDS waaw nee ñii dee bu ñëwoon PDS man ma jox leen sama place Moussa Sarr bu LD waaw nee ñii daal mënu jàngal dara xalaat ñun kay jàngal leen kay waay yoo xam ni kon ay opposant lañu Idrissa Seck ak ne damay daaneel Macky Sall man capitaine damay doon candidat élection présidentielle waaye loolee doyul waar Abdourahmane Ndiaye APR ne bilaay dañoo xamul na kan mooy Macky Macky Sall xamul kan la Ibrahima dem ci l'observateur dama ne gis nga Macky Sall mi daal yaakaar gi nga xam ni kon man day moom laa amoon te moom lépp tas tas ba ne tasar réew mi quotidien ne Serigne Mbacké am na ci Macky Sall yaakaar ah, dañoo war a bootu ci ginnaaw Macky Sall ay Modou Diagne Fadayo ba ci candidat u PDS bi wax di Karim Wade ñoom ñëpp a war a bootu ci ginnaaw Macky bu ko defee Abdoulaye Wade bëgg-bëggam ba mën a sot maanaam libéraux am fi juróom fukki at yàlla yay Serigne Mbacké Ndiaye yéene kaay ne en tout ah, bi day nee Karim waxal ñii nga xam ne kon yéen a ne mënoo doon candidat ci élection présidentielle wax ñi nga àndal Karim mënoo doon ci l'observateur waaw nee na d'accord naa Karim nekk candidat waaye nag il faut mu wàcc sur le terrain réew mi quotidien ne ko déggoo ma di procureur Qatar ci boppam nee na Karim mënoo doon candidat te wax ko ñi nga àndal Alaaji Malick Gakou day candidat la ci la solo yéene kaay waaw nee na man nekkuma plan B wu kenn d'accord naa PS yëpp daal di daje waaye d'accord uma opposition bi yëpp am benn candidat kese déedéet last en tout cas Serigne Mbacké Ndiaye day waaw ay militant am la dajale te mairie bu Pikine mairie Pikine maa la ko wax ci teewaayu Abdoulaye Timbo ak ab góor gi noonu parce que Serigne Mbacké Ndiaye nee na léegi nag Ndakaaru Ndiaye jël Diop lay militer ngir Macky Sall mën a faluwaat waaye na xombol nee na léegi Ndakaaru ndakaaru lay milité le soleil yéene ne njabootuk ñi nga xam ne ñoom ñoo loru kon te diwaanu mbuur gaye waaw président Macky Sall day na leen la ko tijjee yéene kaay ne waaye njaboot ga day la ñuy naqarlu waaw jàppale wu nguur gi daa xaw a tardé tardé dëgg la Ndey Diouf Ngoyaan ci tribune yéene waaw nee na artistes day waruñ di wane seen bopp ci wàllum transhumance politique bi fu tooy nga tak nguur gu ñëw nga ànd moom <laughs> alaaji yow fi boo ko mënulee defar boo diggee weneenuk askan wala yaa ngi leen di nax moo tax ma ne la alaaji tëjal Ce programme vous a été proposé par Emirates.